lu nu wara wax léegi nag xanaa nu sax ci bàkkaar ngir yiwu yàlla gën a bari mukk nun ñi dee ba ci kàttanu bàkkaar naka lanu mën a tee sax ci di ko def xanaa dangeen a xamul ne képp ku ñu soob ci ndox ngir wone ne mu ngi bokk ci Yeesu Kirist ci deewu Yeesu Kirist la bokk bi ñu nu soobee ci ndox moomu nag day misaal ne dañu noo suul ak kirist nu dee ni mu deeye woon ba tax nu dekk it ni mu dekkee woon ci doole yàlla baay bi te nu sóobu ci dund gu bees kon nag gannaaw benn lanu ak kirist dee ni mu deeye woon kon dinanu nekk it benn ak moom dekki ni mu dekkee woon ndegam xam nanu ne daajoon nañu kirist ca bant ba xam nanu it ne jikko ju bon ji nu judduwaale daajaale nañu ko ak kirist ca bant ba te yàlla def na loolu ngir nguuru bàkkaar gi nekkoon ci sunu yaram tas nu rëcc ci dooleem ndaxte ku dee bàkkaar mënatul dara ci yow ginnaaw nag dee nanu ak kirist gëm nanu ne dinanu dekki it ni moom xam ne kirist mi dekki dootul dee mukk dee mënatul dara ci moom dee benn yoon ba bàkkaar mënul ci moom dara te mi ngi dund léegi di ànd ak yàlla ba faaw ci noonu nag yéen itam teg leen seen bopp ni ñu dee ak kirist ba rëcc ci doole bàkkaar di dund ànd ak yàlla ba faw ndax seen bokk ci yeesu kirist bu leen mayeti bàkkaar nag muy yilif seeni yaram yu néew doole bay topp ay bëgg-bëggam te bu leen jébbaliti seeni cër bàkkaar mu def leen jumtukaayam ngir jëfam yu jubadi waaye ginnaaw rëcc ngeen ci dooley dee bay dundaat jébbul leen ci yàlla te jébbal ko seeni cër mu def leen jumtukaayam ngir jëfam yu jub ndaxte bàkkaar dootu leen mënal dara yéen yi génn ci yoonu musaa dugg ci yiwu yàlla lan war a wax nag léegi gannaaw génn nañu ci yoonu musaa dugg ci yiw yàlla ndax danoo wara sax ci def bàkkaar mukk ndax dangeen a xamul ne koo jébbalu ci moom te déggal ko jaamam nga naka noonu mbaa ngeen nekk jaami bàkkaar mu jëmaleen ci dee mbaa ngeen déggal yàlla mu soob leen ci yoonu njub waaye sant naa yàlla ci lii yéen ñi doon jaami bàkkaar bi ngeen déggee mboolem dëgg gi nangu ngeen ko ak seen xol bépp te ci noonu rëcc ngeen ci nootaangeek bàkkaar te jébbalu ci yàlla soobu ci njub xam naa ni seen xam-xam ci mbir mii soriwul moo tax ma yombal wax ji awale ko ci baat yii ni ngeen jële woon seeni cër jébbal leen ñu nekk jaami lu di ak lu bon di gën a jur lu bon noonu itam léegi jébbal leen seeni cër ñu nekk jaami njub ngeen door a sell ndaxte keroog ba ngeen nekkee jaami bàkkaar sequleen woon dara ak lu jub ban njariñ ngeen ci jële nag dara lu gàcce ndaxte ci dee la leen doon jëmale waaye léegi yàlla goreel na leen ci kilifteefu bàkkaar def leen ay jaamam ba jural leen sell jëme leen ci dund gu dul jeex ndaxte peyu bàkkaar mooy dee waaye mayu yàlla mooy dund gu dul jeex ci yeesu kirist sunu boroom